jërë ngeen jëf mbokki internet yi live Dakar 221 dal leen ak jàmm rek ñu andil leen ay jàngat li nga xamante ne si rek moo di situation réew mi jamono ji ñu xamante ne si de li ni dund metti na lool ñoo ñee askan wu Sénégal jamono ji nag mën nañ ne kis yi gën a raw nag moom kooke di président Ousmane Sonko askan wi patriote sympathisant ñëpp rek di amu ko métange li nga xamante ne si na moom lay dund rek foofee ndax jàpp nañ ne jaay doole lu bëri bëri moom kooke président Ousmane Sonko Sonko nekk ay yaakaar ndaw yu bëri bëri nekk si mim réewum Sénégal moom nag mën na ne si kaso bi lesk téye booba léegi rek ak wéra dig yaram tamit daaneel ko mu nekk rek foofee rek sa hôpital principal bu Ndakaaru moom kookee di président Ousmane Sonko ah, fan yi ni ñëw nag si kanam la di waa CEDEAO ak kuréel a addu rek si mbiram Ousmane Sonko moom kookee nga xamante ne si na rek ba tey rek lenn rek la ñuy xaar si moom bokk rek si élection yu ñu dëgmal la 2024 loolee nurta yomb moo benn yoon ndax ku ne xam na ne jamono ji kii di président Ousmane Sonko ak état bu Sénégal am na ne ay problème yu mag a ndax kii di président Ousmane Sonko ba tey mënut sax récupérer li nga xamante ne si ne moo di ab fiche de parrainage am man kaa yóbbu rek si élection yu ñu dëgmal la 2024 mën na na booba rek ba siis saba si fay waxee nag na ke dugalaat si liste électorale mën na na rek booba ba tey rek mënut euh, duggaat si liste électorale ndax fekkonte ne confirmé na ko kon kii président Ousmane Sonko das rek joxaat li nga xamante rek moo di ab de na na ma nga tàgge rek foofee sa DGE ak sa Sénat loolee nag ba tey askan wi di bëri di sampi question di laaj lan moo tax mënunoo jox ki nga xamante ne si ne moo di fiche de parrainage kii di président Ousmane Sonko mu dem rek collecté ji li nga xamante ne seen rek moo di fiche de parrainage comme ni président Ousmane Sonko ndax dina bokk si élection yu ñu dëgmal 2024